papa Moussa ak Amina samay njaboot lañu tànk sama bii maa ngi nooyi kenn du leen laal. gis nga kii nii bis ma ko jàppoon naa ko jaay sama bakkan bii naa ko téye ba ñu yóbbu ko pëli mbaa sama papa ñëw wala mu rey ma benn yoon. saa bu xamoon dëgg li ma koy waajal dina ma moytu bu baax bu baax nag ma lay wax ni sëy si nga kër gu danse dugg nga ci wujj boo xamante ne bandi la wëyu la. capable na. nii ngeen fi defoon ci sa yaay ba man mi mujj gi ma am ay hallucination di ko gis ngir yàlla bii paa moom bu leen ma indil benn plaignant. ndax xadi lépp lu bon lu mu leen mës a def sa tànt bi dina ko fay ci lu bon ba wis ko.